li ñu doon tudd ci ay jigéen yëpp yàlla may nañ ko fi ci réew mi ñëwal ci maam Kumba Ndooy li ngeen def ci seen lettre bi seen téere bi maam Kumba Ndooy li li laay am dafa gont yaayam moo xëyoon dafa dencoon toujours moom moo doon jox maam limaamu xaru tabaski ci géttam ki bàyyi maam limaamu maa ngi jéggal toujours moo doon joxe xaru tabaski mu yafal benn xar ba mu ba mu jekk xar bi dem ànd ak moromi xaram yi ba ñu wottee ci ñax bi bay naan ci déeg bi ndekk jësit mu ngi foofu jësit bi ñu daan ne tataf bi maam ko mën doon dencal borom këram rek kuus ak moom jëm ci biir di ko dugal di ko génne pour xër ko naq ko mu dee xale yu ko ne ah suñu maam day xar bi mu doon dencal suñu maam bu góor ngir tabaskeem jësit bi jël na ko ne nañ maam ku mën doy fa la sànne mboole malaan yu oyof yu diisam sànni di ko ca biir ñu ne ko bul dem mu ne ko bii ma joxoñ kilifa gi ne ko bii sa mooy saxaru tabaski man man maay dee ngay yóbbu kuy gi waaye kuy bu du dee mu man ma dem nettali lii maam Kumba looy moo ko def muy jëflanteeg jësir bi di jëflanteeg moom ba dindi ko ci gémmiñam kooku bu juree limaamu laay wallahi jaadu na mu jur ko kii moo defoon lii ngir doomam am tey ji nee na waaye nekk borom kër ga mu ngi ca kër gi xam na baatin mu ne ko soxna Kumba mu ne ko mu ne ko li ma doon jaay jaar na ki jamono doon wut xamuñ fan lay feeñe ji feeñ na ci Cap-Vert mooy ajibu daa iyallah kon jigéen moo xëyaloon doomam mu gont ñu dem ca gaaya am ko jóge fuuta ne dafay jàng téere bu ñu dee ihmira ñu <coughs> ko dee maam usmaan mu ñoo di jàng foofu bu demee ca teen ba mooy mooy mooy duyal jigéen yépp maam Faatumata Wàdd Welo gis ko gis ko muy ku baax mu dem ci kër gi ci nawet ñu mu daal di mu daal di béy witteen defar ay sër yu rafet ba mu déggee Cheikh Omar Fuuti jóge na penku ñëw mu daal di ko jox càmmiñam ne dama jox ko ne ma ñaanal ma am góor yàlla jigéen nii la doon def ñaanal ma am góor yàlla waaye tey fu muy liggéey ban banque la mooy lan foofu euh, yéeme na waaw ah, mu ne ko sër bi boo demee nga joxal ma ko Cheikh Oumar Fouti na ma ñaanal ma am góor yàlla bi Alpha Mayoro yegsee rek Cheikh Oumar Fouti lal benn bi taraxlaa yoo benn bi tàmbali wasifa moo seeta li yàlla may Alaaji Maalik ci xolu Afrique occidentale française seen capital fa la def Zawiya muy Saint-Louis ñëw ba capitale bu senegal mu samp Zawiya digg dëkk bi lan moo ko may maam Ousmane dafay romb benn fas fas ba du naan ndoxi ndaal mu tukki ñëw guddi mu ne ko te moom du naan ndoxi ndaal nu ñuy def mu ne dinaa ko wëggi mu ne ko teen bi ci àll ba mu ne ko falaa jëm de xaaju guddi maam Faatumata Wade Wele mu téye fas bi dem njëkk ko may ndox mu naan mu suqi ko sang ko ci xaaju guddi gi de daa di feesal paanam ne pour mu yenu ko yóbbaale ko baag bu mujj ba njàppaan téye ko njàppaan ñun waa kaw gi ñoo koy xam njàppaan téye ko mun ne koo génne ci xaaju guddi gi mu wàcc ci biir teen ngir génnee baag ba muy génn mu dajeek maam Ousmane ci pind bi mu ne ko mën nga seet si mu ne déedéet ñu bokk dégg benn baat mu ne li naroon a yëngal jamono ci yàlla ñu doon seet ban jigéen lañ ko jox jox nañ la ko tey mooy Alxaji Maalik Si kon jigéen moo xëyoon ca gaaya yàlla may ko Maalik Si réew mi yëpp da nga dégg xalifa xalifa waaye xalifa général tiijaan foofu rek la ki ko liggéeyal mooy maam Faatumata Wade Wele ñu jóge foofu ñu dem Poroxaan maam Momar Anta Sali dëkk kaw gi bunt kër néeg bu nekk ñaari bunt lay am bunt ndeyjoor bunt càmmoñ nitu yàlla yi dañ lay nattu nattu yu métti ngir bugg laa jëriñ kuñ bugg a tooy la foog ñu xuus loolu mu ne soxna Mariama tegal ma ndox damaa bëgg a sangu sangu nit kese moo koy def mooy damaa bëgg a laal ndox soxna si jël faxa def ci ndox dem teg ko ci wanag bi sukk ci wetam ndeke nawet la ngelaw bi riddi ci kawam mu dotti taw ci kawam lëndëm bi ci kawam ba njël maam moom ak Anta Sara génn Sali Mbàkke génn ah ne lii lan la njuuma wala lan mu ne ko man ma Bousso la mu ne loo fi wut mu ne ko yaa ma joxoon ndigal ne naa la dajal ndox dangay ngay seetlu mu ne ko lu la tee de mu ne ko seen ndigal laay xaar mu ne ko ndigal yàlla na doon sosoo ci njaboot ba tey murit bu joxee ndigal te bu ne weer bi feeñu danañu war ba déwén kenn du dagg <laughs> maam jaara la mu ne ko lën lëndamaayu guddi sa doole njaboot yàlla na mel noonu seetal lii tax dëkk dëgg dëkk teel a màgg amul Touba te Touba mooy gën a màgg tuubaa amul port amul aéroport seen bool moo gën a niin seen poos a gën a tilim kan moo ko def maam jaar mu ne ko tey jii tuddatoo Mariam waaye jaaratullaay nga tudd ki dëkkaal ak yàlla kon maam jaara moo liggéey loolu fan la ñuy mujjee si mooy waajuri sama xarit mooy Maulana Cheikh Ibrahima Niass Euh, borom wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatul xuldi bi laa buxtaani is annani xalifatu tijaani na na nangu ak ñàkk nangu moo ci yam yàlla def na ma bu Cheikhu Tijaan wéyee man maa tegu <laughs> foo dem ci àddina bi buñ ne kii taalibe ku topp sénégalais la te wolof du doomi Sénégal taalibe bàyyi la Nigéria dem na bi ay cent quelques million waaye téeméer boo jël daanaka neel juróom-ñaar fukki yëpp taalibe baay la waaye waaye juróom la de dafa am benn xut bu zaman bu doon ndox ba yegg kër maam alaaji abdoulaye fekk mu tukki mu ne ko sa borom kër laa gane si woon mu ne ko dafa tukki mu ne kon maa ngi dellu mu ne ko déedéet boo ñëwee ci kër fekk ko fa borom kër bu jigéen bi nga fekk fa bu fekk ko fa bu góor bi nga fekk fa bu jigéen moom nga fekk mu dem ci wanag bi dajal ko ndox may ko mu naanagum ba muy laal ndox mu daal di ko defal ndékki euh, defal ko ba mu rafet mu ñëw mu jox ko mu xéewlu mu ne comme xéewlu na maa ngi dem soxna si ko ngan ñett fan de seetal ngan ñett fan tey da ngay ñëw ci kër ni salaamaaleykum ñu ne dugalal bool yi gaaw balaa gan bi di ko gis <laughs> waaw ci noonu soxna si gane la ko ba ñett fan ba muy ñibbi mu ne ko soxna si fan yëpp yow rek laa doon ñaanal euh, mu ne ko bu sa borom kër dikkee nga ne ko am na ko fi ñëw nii sa borom kër bu ñëwee nee ko di nii la mel nii la mel mu ne ko noo tudd mu ne wax ko melokaan bi rek mu ne ko ñaanal naa la euh, danga am doom doom jooju nañ ko tuddee Seydina Ibrahima alayhi salaam fépp fu jant bi tiim ci àddina bi dina fa tiim njobootam yàlla defu ko wallahi yàlla def na ko buy Amérique ci Atlanta tubaab bu xonk toog di wasifa nga dem ba ay Afghanistan ñu yore ay wér di Tijaani kon maam Astu Jànk moo ko liggéey fii ci Taïba Niassène mu àdduñu ponkal bi te mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass bu ñu jëloon Aysatu li awa li waajur Ceerno Muhammad Sayid nii la bu ñu jëloon Adama Ayche waajuri Cheikh Omar Fuuti Taal nii la bu ñu jëloon Saafara di yaayu Ceerno Abdou Karim Jàllo bi joxoon wir di Tijaan Cheikh Omar Fuuti Taal koo laal ci rek góor ñu mag ñi jigéen ñu mag ñoo leen jur euh, maa ngi ñaan bu ngeen fi jógee tey kenn ku nekk na dem sukkal jëkkëram na ko baal ma na ngeen gën a góorgóorlu góorlu euh, nangeen gën a bëggante na ngeen gën a soppante kii jaamu yàlla bu juuxoon seen biir la fu ngeen natt mbëggee la bëgg na leen ëpp loolu samay jigéen na ngeen muñal suñuy baay suñuy baay na ngeen muñal suñuy yaay li nga xam lépp yi nit boo ko xamee boo ko waxee pénc ba tas da xam ne kii li mu wax du dëgg waaye maslaa ko danga xam ne sama borom kër gi li mu wax tey nii déedéet dafa doon wëndaalu ci àll bi rek waaye nangul ko ngantam alkamalullaay mot cëru yàlla la sa soxna dina la ne lii fukki dërëm laa ko jënde fekk dërëm la ko jënde nangul ko nangul ko Euh, dama demoon ci teen ba fekk ca pénc ba la demoon nangul ko dañ la ko dénk ngir nga dimbale ko na ngeen dund dendu Seydina Omar bun Xattaab Omar ñëw na ci këram soxna alsee la ko di coow di coow Seydina Omar sëgg ba ndaw si noppi mu ne ko pare nga mu ne ko ma parewul nag mu ne ko na nga mottali euh, bu bënal dafay gaañ borom soxna si kersaw Omar di génn ki mu àndal ne ko ko yow bëqat nga yaa ngi coow fii ci dëkk bi ndeke yow nii nga doonee tàppet mu ne ko noppil kii bu ma solee lu sedd moo ko fóot bu ma lekkee lu neex moo ko togg bu ma naanee lu sedd moo ko root bu ma duggee ci néeg bu am cuuraay moom moo ko def bu ma yàlla naptoo ba ma dellu di nit ki lay àndal ci lal bu ëmbee man maa ngi nelaw moom mi ngi wéeru ci bopp lal buy wasin sans gagne sans perte la mun na dee doom bi judd ñu nangu sant bi ci moom jox ma ko ëllëg bu ma ko yónnee yaay bi yónni ko mu bàyyi bu yaayam def sama kon bàyyi ko mu wax lu ko neex man nangul naa ko euh, xale yi foofu lay ajee si na ngeen fonk way juri na lu jant bi tiim moo gën a bon gannaaw iblis woote na ne moom yàlla la ana rabbakumul aala yàlla bàyyi ko fi Muusa ñaan yàlla guddeeg bëccëg dara sottiwul mu ne yàlla kii li mu rey ci mbindeef ngir man bu ma judd ngay seetaan ki mën a am Moussa kii dafa am benn sens de mooy dafa fonk waajur moo tax li nga yonent yow nabiyu nga rasuul nga yàlla mayoon na la àlluwa may la tawraata nga bokk ci ulul asmi sa ñaan mënul ci moom dara xanaa mu weddi yaayam ne bés bu weddee waajuram rek mu torox fekk Moussa buy ndékki daf koy andi ci yaayam muy uppal yaayam ba yaayam lekk ba mu ba suur mu lekk desib ba buy añ mu andi añ di nax yaayam ba mu lekk mu lekk desit ba reer tamit noonu awa dem ñaan yàlla mu dëddale leen dëddale baaxul da ngay am sa jabar bëgg nga ko ba bëgg a dee ñu dëddale la nga am sa jëkkër bëgg ko ba bëgg ñu dëddale la nga am doom bu lay jëriñ ñu dëddale la nga am xarit bu lay jëriñ ñu dëddale la nga dem ba ñu may la nomination ñu dëddale ak directeur bi ñu dàq la nga dem ba bëgg am licence maîtrise def doctorat ñu dëral la ak njàng ngay dox ci mbedd bi di gens rek allah xeer dina metti dina lii luy jeex la ah mu dëddale ko moom dëddaloo ko ngir yàq waaye dëddale ngir lis ngir diina am jàmm fiir aw na xëy benn bés rek demul ci yaayam yaayam jël yatam di dox ba ñoo fekk mu toog ci biir gouvernement bi ne firaw na mu ne ko mu ne ko man bi léegi lekkuma ndékkiwuma naruma añ mu ne ko yaay ñëwul mu ne ko ah, ñëw na kay waaye li nga doon def nga deful ñëw di waxtaan ak man diif ma bu ma lekkee nga lekk desit ba mu ne ko yaay yooyu bés yi du tolloo waay tey dama nekk sama mbiru nguur gisoo ministre yi mu ne ko Firawna man ngay wax mbiru ministre Firawna man mi la ëmb wasin la nàmpal la di la setal nga toog ci biir ñu ne mbir nguur ngay toppatoo boo juddul woon da nekk buur mu ne ko mbas ma la waay mbas ma la ñett fan la ci teg mu lab ci biir géej gi ba léegi Firawna nee na mes nee na menten kon képp ku bugg a réussir ci yéen na toppatoo papaam na toppatoo yaayam